الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نمشي تيري بير خلاص ذهب في سير خير العرب نمشي جانغل الله تلين قمي ننتي صلى الله عليه وسلم دانكو بندو غير حوالين كي إسلام سير الله وحنه képp kuy ku bëgg lu baax rek war ngay jàng siira rawatina siira yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam <clears throat> ndax da nga ci gis ci góorgóorlu ak ci mën a muñ ak ci organisé wu ak ci am xel lu la lu mën a defar sa yoon yëpp yonentu sallallahu alayhi wa ku ku wu loon nan ko yónnee nga ku organisé loon moo tax ba mu demee ba nga xam ni xaw naa dëgër nag mbir yi dal na dafa commencé bindi buur yi leetar di leen wax ci islaam benn buur rek bu nekkee sa gannaaw mook soldaaram ya loolu mën naa dëgëral diine ji waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ma ngi ca waaye lépp loo xam ne dafa yàqal diine na wala mu di ko doole kooku wan na ko gannaaw ana lu mu leen bëgg a wax mooy su ngeen nekkee ci mbaax la ngeen war a bëre bam nekk ci yéen mooy ngeen sellal mbaax gi yàlla rek tax waaye bis bu ngeen demee ba nga xam ne wóor na leen ne li ngeen def rek a tax lépp loo xam ne dana dëgëral seen loolu na ngeen ci nekk wut leen ko bu leen ko bañ ndax bañ nit ñi naan ndax dina gën a wut ak mën a wax <coughs> waaye lépp loo xam ne dana néewal doole seen mbir wal leen ko gannaaw si ne may dégg tey ñu si jamono joo xam saay-saay ñoo gëm seen bopp dëggal seen bopp foo leen fekk ñoom saay-saay yi ñi nga kaalaw buñ waxee yaakaar ne ay yonantu lañ ndax naw giñ naw seen bopp gëm-gëm gëm seen bopp te dara nekkut fa ñoom ba am ci lu bëri jaay ko nit ña nit dikkal leen ndax seen àdduna googu xam nañ ci mbooloo lu jeex jaay ko nit ñi nit ndax mbooloo mu tant buñ tant rek mbooloo dem ña leen gëmul sax dañ fa dem ña leen dem nañ ba commencé duuti ndax àdduna bañ xam ñettu yàlla yi nag ñu bëri ci ñoom ñu naan waaw ñun dañoo dëddu àdduna ci ñàkk ndax gis nañ ne loolooy xaalu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi amuñ dara ci àdduna amuñ benn organisation seen lépp a jaxasoo <clears throat> bu ko defee nag amuñ benn taar ci taari àdduna yi ni ñëwoon leen gannaaw loolu laa wax ne may na ngeen ko ba su fekkee mbooloo mooy dëgëral seen mbir di yokk seen liggéey te yàlla tax bu leen ko bañ su fekkee alali àdduna mooy dëgëral seen mbir di ko yokk ma ne bu leen ko bañ su fekkee ngeen jiitu ci kanam nekk kilifa ga loolu mooy dëgëral seen mbir bu leen ko bañ yéen daal bu leen wane seen bopp def leen te yàlla tax bu ngeen demee ba am lixlaas bu leen bañee ci dara luy dëgëral lislaam loolu maa leen koy dénk waaye bañ ñu naan a ah, léegi dafay sëriñ sëriñ lu tax tax ngeen nekk ca gannaaw suulu di <clears throat> dee deelu ba liggéeyu leen la loolu laa wax ne loolu baaxut loolu ngis tal la ba tey yonent nag sallallahu alayhi wa sallam leetar jàngoon nañ leetar bi mu bindoon lam ci utilisé tur yàlla bëri na bokk na ci tur moom ci utilisé woon firiwuñ ko muy al moomin moomin mooy lan mooy yàlla mooy ki nga ne nii mooy garanti jullit ñi moo leen di garanti di leen musal ci mbugalam kooku tur la ci tur yàlla yi <clears throat> wala boog dana dëggal képp ku baax yawmal qiyaamati wala ne ku baax la muumin sax ci tur yàlla la bokk daan wax foofu ne maxjo bi nii leneen yit yàlla mooy mela yi suñ gis-gis danañ xam ne melo gis rek melo yàlla <clears throat> lu mooy melo yàlla yi waaye loolu mun ko dégg na ñoom yonentu sallallahu alayhi wa asxamatu najaasi najaasi <clears throat> moomu daal di dugg ci lislaam kooku yokk doole lislaam gannaaw ga beneen buur faru na kooku nag nee na xamuñ suma turam alalami ba jago mooy ba mu koo daal kooku kenn xamut turam kenn xamut ci suwaaram dara wa dexetu yonentu yónni dexee li xeraqlu jëm ci xeraqlu xeraqlu mooy buuru ruum yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bind na ko leeta di xeetu kël bi te xeetu kël bi saxaaba boo xam ne jibril dinañ wàcc lu bari ci meloom jibril bu wàccee boo ko xoolee naan di xeetu jibril la <coughs> moom jibril daf ko doon niru niru lu bëri moom la yonent yónni woon nag ci xeraq la xeraq la moo doon waaye kenn la xoon ci ñi nga xam ne yàlla daf leen mayoon xam-xam ci wàllu biddiw bis dafa jot rek mu daal di xool ci biddiw yi gis ne nguuru nguur bi nga xam ne ni mooy nguuru ñee xaraf feeñ na te dana not mboolem nguur yi dana leen ëpp doole ah mu jaaxal ko nag ne man de gis naa ay nguuru ñi nga xam ne ñooy xaraf ñu ne ko fii de benn giir rek moo fi xaraf mooy yahudi te yahudi yaay seen buur yaa leen moom yónneel ci dëkk yi rek koo fa gis muy yow nga rey ko mu jeex ndax buur moom ñu gën a bañ mooy ku yàq nguuram te buur bu ko rek yàq nguuram loolu laa leen wax toujours ne leen lislaam rek mooy benn buur bi nga xam ne ateem maandute la ñëpp ci ci xem du tooñ kenn du noggatu kenn ñëppay dund ci maandu googu lislaam rek ko xam waaye nguur gu dul nguuru lislaam bu maandoo dafa maandu ci xeet jëng ci xeet wala mu maandu ciw nit jéng ciw nit nguur gudul nguur lislaam bu sampoo nii rek ko nii rek mën a def ba mën a dox tooñ ñii maandu ci ñii looloo waral buuru njëkk yi lañ gën a ragal mooy nguur gu feeñ ndax wóor na leen bu nguur feeñee dana leen faagaagal dana leen xarak <coughs> léegi tubaab yi noonu lañ fi nekkee noggatu réew yi doole yi maandu seen biir dégg africain yi nga xam ne ñoo xamuñ kenn kuñ not ñoom ñu noggataante seen biir ñoom buur yeeg président yi noggatuñ opposant yi ak ñu néew doole yi ngir mën faa nekk dégg nga moo tax yàlla nañu yàlla delloo ci lislaam mooy nguur ak dëgg bu ko defee nag xeraqlu daal di tiit lool ñu ne ko yónneel ci mm, dëkk yi koo fa muy yoxoon nga rey ndax ñoom rek ñoo fay xaraf ci saase rek xeraqlu daal di jot benn leetar bu jugee ci buuru Xasaan muy lettre yonent yàlla mu sallallahu alayhi wa sallam waral na yàlla yónni na yonentu bi mujj ñëw <coughs> maanaam daf ko ni daal ko am na ku feeñ Makka nee na yonentu la ñi gëm nañ ko ñi weddi ko wax lay xew ci mbiram yëpp tirax ne xoolal leen ma ndax dañuy xarafam déet ñu ne ko waaw mu ne arab yi xaraf ñu ne ko waaw mu ne wallaahi mooy nguur gi ma gis feeñ na daal di bind leetar am mbokkam dégg nga ci ruum ci ruum ya ruum mbokk moom it ku bari xam-xam la woon laaj ko loo xam ci lii ma gis xerax la daal di laxas nag jëm ximsa balaa muy egg ximsa rek mbokkam ma na ko ne ko wallaay kooku yonuntu la feeñ na <clears throat> mooy yonuntu bi nga xam ne ni mooy xal ci ñoom mu jëg jamono ah yàlla dogal nag yonuntu yoni dexeetul kal bi muñ daal di ko ñëwal fekk Abu Sufyaan jamono boobu mu ngi foofu ndax dañ doon commerce ña nga Saam di commerce mooy jamono sulhu Hudaybiya bi kóllëre ne nañ bàyyi xeex bi Makka daal di am dal nag Abu maa ngi commerce ci raxi di yónnee fekk ma nga Iliya Baytul Maqdis daal di yónnee ci ñun ba ñëwee mu dal di toog sangi Room yëpp ngi dal di toog moo tarjuma turjumaanam ki koy taraajiral ne kan moo gën a jege góor gi wax ne yonentu la Abu Sufyaan ne man maa gën a jege ci askan mu ne jege leen ko jege leen gaayam yëpp ñëw ñu ñëw nañ ko nañ nekk ci gannaawam mu wax tarjumaanam bi ne ko waxal gaañ yi ne leen damay laaj kii su ma ko laajee bu fenee wax leen dafay fen Abu Sufyaan ne su ma bañutoon ñëw nettalil ma fen konoon danaa fen fen yu rëy ndax yàqal yonent bi sallallahu alayhi wa waaye daa ruus naa ñu nettalil nan fen fen wi te lu xew gars yi danañ ko nettali moom gis ngeen arabe yi ñoo amoon kóllëre lañ waaw ndax buñ fasante waan kóllëre dara du ko fecc waaye ñu ragaloon fen lañ kon boo demee ba nekk jullit nag rawatina <coughs> rax la ne Abu Sufyaan waa ji nu askana mel ci yéen mu ne moom kay ko am askan la askan bu baax ci la bokk mu ne ko ndax xam na ku mos a wax lii mu wax njëkk ko Abu Sufyaan ne déedéet kenn mosu ko wax njëkk ko mu ne ndax ay baayam am na am na ku ci mos a nekk buur Abu Sufyaan ne déedéet amul bàyyi ju mos nekk buur de moom mu ne ko néew doole yi ñoo ko topp wala borom doole yi mu ne ko néew doole yi ñoo ko topp mu ne ko ñoom dañuy yokk wala ñu wàññeeku mu ne ko dañuy yokk mu ne ndax kenn dana bañ diineem gannaaw mu ci duggee mu ne déedéet moom kay ku dugg ci diine ji daal moo lay gën a lépp mu ne ndax ko tuumaal fen ndax mos ngeen na tari ay fen wala mos ngeen gis mu fen balaa muy wax lii mu ne déedéet mosul mu ne ndax mos naa xor mu ne ah Abu Sufyaan ah, ñu ngi ci daal kóllëre goo xam ne xamuñ lu mu def waaye daal mosul xor moom waaye daal jamono ji fasante nañ kóllëre te xamuñ fu muy mujjee kóllëre gi Abu Sufyaan laajul benn laaj boo xam ne mën naa ci rax dara lu mooy lii bii moom mën naa ci rax daal lu ko sikkuloo <clears throat> fenul daal waaye def na ko ñu ngi ci kóllëre goo xam ne xamuñ lu mu cay def mu na ko ndax mos ngeen a xeex moom mu ne ko waaw mu ne seen xeex ne ko tey ñu not ko suuf mu not ñu loolu la ñuy xeexee gis nga moo tax yàlla may kenn koo xam ne saa su nekk moo moo ëpp doole ba ci yonent bi nga xam ne moo nekkal yàlla léegi-léegi mu am jafe-jafe léegi-léegi am dam àdduna noonu la <clears throat> kon loolu mu leen jaaxal ay noonu yàlla jekku leen bu subaa ngeen jekku leen rek de bu leen loolu mu tax ngeen doye di <clears throat> mu ne lan la leen digal nee ngeen jaamu yàlla bu leen ko bokkaaleeg dara bàyyi leen li seen bàyyi doon wax mooy xërëm yi ñu leen jaamu daf ñuy digal julli ak saraxe ak fegu mooy bañ a ak jokk mbokk lii lañuy ñuy digal xarax la ne laaj naa la askanam nga ne ko am askan la yàlla mosul yónni benn yonent lu mooy yónni na ko ci askan wu rëy la koy génnee maanaam yonent bu ñëw rek borom askan lay doon laaj naa la ndax kenn mas naa wax ji njëkk ko nga ne déedéet su ko kenn masoon a wax njëkk ko ma ne waa rek la dégg lu lu ñuy wax rek muy toppandoor waaye comme que mosu koo dégg toppandoorut laaj naa la ndax ay baayam amoon na amoon nay buur nga ne ma déedéet su fekkoon na am na bàyyi ñu nekk buur ma ne góor guy sàkku nguur ak baayam rek la bëgg nekk ci nguur ga rek <coughs> waaye ju nekk buur laaj naa la ndax mos ngeen koo tuumal fen njëkk muy wax li mu wax nga ne déedéet xam ngeen ne kenn du bàyyi fenal nit ñi di fenal yàlla ku musul fenal nit du fenal yàlla kon bu ne leen yonentu la dëgg la laaj naa la ndax néew du doole yi ñoo ko topp wala borom doole yi nga ne néew du doole yi néew topp yonent yi yonent bu yàlla musa feeñal rek ñu ci gannaawam borom doole moom dañuy bañ ba léegi loolu ana yàlla ci kaw suuf laaj naa la dañuy yokk wala dañuy wàññeeku nga ne dañuy yokk gëm yàlla noonu la mel day yokk toujours ba mu mat ba ni muy matee laaj naa la ndax kenn dana bañ diineem gën a mu ci duggee nga ne déedéet gëm yàlla it noonu la mel su duggee ci xol borom du ko bañ mukk lu mooy ba taaram daal di fees ba rek laa laaj naa la manax dana xor mos naa xor nga ne déedéet yonentu noonu la mel du xor laaj naa la lan la leen digal nga ne daf leen digal ngeen jaamu yàlla bu ko bokkaal dara di leen tere jaamu xiram yi ak di leen digal julli ak bu fekkee li nga wax dëgg la fii ma tëgg dëgg sama tànk dana ko moomi loolu la xeraax la wax mu ne ko bu fekkee li nga wax ci waa ji dëgg la fii ma dëgg sama tànk nii bis dina ñëw moo koy moom lii loo ci jàngee mooy nitu tey yi ku si jublu àdduna daal du xam dara ci diineem waaye xam nga ne xeraax la mii borom xam-xam la woon demoon na boobu ah, di gis comme nu ko gars yi di defee te moo gën a wóor la gis moom tappale utoon ndax amoon àdduna demoon na ba nga xam ne bu jotee xibaar rek dana xam kii yonentu la wala du yonentu ndax jàng gim jàng téere yu njëkk yaa ci noonu la meroon waaye tey daal ku yàlla may àdduna daal sa diine doo ci xam dara boo jàng um, falaqe naa si sax jàng ma du wér xam àdduna teewut a xam yàlla teewut a jub teewut a ragal yàlla rax na ne su fekkee li nga wax dëgg la fii ma dëgg samay tànk moo koy moom xamoon naa ne dana génn gis nga waaye xamoon ne ci yéen lay génnee wallahi su fekkoon ne mën naa xegg ci moom liggéeyal ko kon lu ma mën danaa ko def ba dajeeg moom te su ma demoon ba dajeeg moom maa koy raxasal tànkam ya lii la xerax la wax bu ko defee nag <clears throat> Abu Sufyaan waaru lool ndax buur bi ni mu wegoo ak ni mu ragloo dem bay ragal yonent bi sallallahu alayhi loolu jaaxal ko رخنا أي واحد يخلي الما لا تربي لا تربي نخمة دهية أنينكم بكرة في دهية دال ديكو جوخ رخلا من جانغ من بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرق العظيم الروم سلام على من اتبع هدى نون لينيو هبر أما بعد فإني أدعوك بالدعاية الإسلامية أسلم تسلم يؤتيك الله وجرك مرتين فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقول اشهدوا فقول اشهدوا بأننا مسلمون قلنا بسم الله من موجي محمد جامع الله ينتم جم تي نخل ميغا خني موي ماغام روم ماغي نيو كيب كو توب نجوب غيسنا ينتم مامي فولا gannaaw bu ma sant yàlla maa ngi lay xoo ci wooteeg lislaam jébbalul mucc yàlla jox la sa tiyaaba ñaari yoon mooy wóor na ko bu mu bi jébbaloo ñi si gën a am jébbalu te moo tax ñi si a am jébbalu kon dana am ñaari tiyaaba tiyaabaam duggam ci lislaam ak tiyaabaay mboolem ku dugg ci lislaam ngir moom mu ne ko boo bañee nag yaay gàddu bakkaar yi boo baykat yi mooy lañ laan bay <laughs> maanaam yaay gàddu sa bakkaaru nit de nga déggee ci képp koo xam ne yaa tax duggut ci lislaam wala jubut da am bakkaaram bañ gi nga bañ moo tax gaa yi bañ kon da nga am sa bakkaarab bañ ak bakkaarab gaa yi nga xam ne ñoo bañ <clears throat> loolu la ko wax fii yàlla na la jox sa tiyaaba ñaari yoon tekkul ñaari yoon rek mooy da am sa tiyaaba am tiyaabay képp ku la topp loolu na mu ci yoon tegtal bi mooy boo bañee bakkaaru sa peuple bi yépp yaa koy gàddu ndax yaa leen tax bañ kon kenn ku nekk war naa moytu nekk gàllankoor ci njub ne yéen ahlul kitaab mooy nasara yoo dégg nasaraan yi ci baat boo xam ne mu ngi seen téere nekk suñu téere mooy war ñoo jaamu ku mooy yàlla buñ ko bokkaale bu kenn jël kenn def ko muy borom bu ngeen bañee nag seede leen ne ñun ay jurit lañ moo tax seede yeneen nit ñuy seedeel bu ko xeeb lu baax la <clears throat> Abu Sufyaan ne ba jàngee leetar bi cool yu bëri kàddu yu yëkkatiku ku nekk di wax ci lañ ñu génne ba Abu Sufyaan gëne ne bismillah ah doomi Abi Kabsha gi léegi moom buur la mooy yonent bi sallallahu alayhi mooy doomu Abu Kabsha dem na ba buuri ruum di ko ragal Abu Kabsha di ne leen mooy xaaris bin abdul uzza bàyyi yonentu la sallallahu alayhi wasallam ci naam baale ah Abu Sufyaan daal di jaaxle mu boobu daal la sama xel na kii faw mbiram dana kawe ba ni ma yàlla dugalee ci lislaam Heraql <clears throat> nag dajale na mboolem sangi Room doomi kilifa yi ñëpp mu dajale leen ci benn bara waaye nag ñemewul mu yëg ci benn taaxi kaw taxaw ca balcon ba jàkkaarloog ñoom ne leen ndax bëgg ngeen texe ak njub ndax bëgg ngeen seen nguur sax bu ngeen ko bëggee na ngeen jaayanteeg yonent bi kii yonent la ñoom ñëpp ñu daal di tëb mel ni njaaxal bu mer pour di àgg ci moom dal di ko rey benn yoon fekk bunt yëpp daf koo tëj gars yi mënuñoo yëg ci moom ba Xerax la gisee xew xam na ñii duñ gëm ba mukk mu xoo leen ñëw mu ne wax dama ko wax rek pour xool seen diine ni ngeen ci mel gis naa ne dëgg-dëgg gëm ngeen seen diine saay saay nii lay def dafay wax dara ba pare bu gisee naa mu cëndam nag mu jéem koo lay mooy borom xel yi nii la ñuy def <coughs> aywa gars yi su jóot daal di kontaan ci moom nag fii la mujj dugg ci islaam jubut yàlla rek mooy jubal ku ko neex loolay leetar bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yónni woon na ko ceerax la moo tax mu ne wa dexiyatu yun ne dexiya لهرقل جمش هرقل عظيم روم هذا يريد الإسلام والصلاة والتوفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته